jërë ngeen jëf mbokku internetu Sénégal 7 ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di am contentement saa su ne di ànd ak yéen ci seen ay euh, actualité waaye di ànd ak yéen ci lépp loo xamante ni ñeel na leen bëgg ngeen ko xam ci réew mi tey nu fas yéene ci def ay yaatal am ci koo xamante ni dinañu leen ko présenté mu ngi nii ngeen jàkkaarlook moom moom nag ngeen xamoon ko ci benn casquette boo xamante ni miinoon ngeen ko ci muy lu jëm ci wàllu théâtre léegi nag mu solaat beneen casquette boo xamante ni luy yëngu ci wàllu politique la moom mi nga xamante ni mooy ji Rafet faral ki nga xamante ni mooy pro Sonko di ko soutenir di ànd ak moom ci fépp foo xamante ni ah fu pro Sonko di dem ak ay activités yi nga xamante ni waa Pastef dañu koy def bokk ci cadre yi nga xamante ni naa ne ci biir Pastef moom Alaaji Rafet la nu fas ànd ak moom tey waxtaan ak moom ci actualité réew mi waaye waxtaan ak moom ci lépp loo xamante ne daal bëgg ngeen ko xam ci pro Sonko ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyu mbokk fay Fall maa ngi lay fay di nuyu waa Sénégal 7 di nuyu boroom këram euh, borom kër gi di nuyu suma sista Ndeye Sène euh, ak jëkkëram maa ngi leen di ñaanal jàmm di ñaanal site bi yàlla def ci jàmm ba fépp mu bëgg a yegg rek yàlla suñu borom yeggal la ko fa di nuyu waa Sénégal gépp nag. jërëjëf euh, El Hadj si nuyoo bi am na solo dañuy tàmbali ci li nga xamante ni bëgg nañu ko euh, bokk waxtaan ak yow ci lu jëm ci réew mi ak euh, actualité réew mi mu mel ni jamono yi déggoon nga fi mbiru Kaliphone nga xamante ni moom duma la wax sax kan mooy Kaliphone xam nga ko ci li mu tàmbalee njëlbeen gi di ko def ah mu mel ni ay jamono doon na bokkoon na ci ñi nga xamante ni dañ leen doon wax ci waaw Pastef ñu bokk ci di jàppale ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko. mujjantel gi mu dem ba nga xamante ni fare na ci côté li nu mën a wax président ndax euh, bàyyi na Sonko dem ci président jël wëlbati ay saaga di ko jëmale ci pro Sonko ah, dem ba président gis nga may ko benn interview boo xamante ni def na ko ak moom gannaaw bi nga xamante ni daje nañu France lépp li nga xamante ni doon na ko def ci ak président di ko saaga ak yooyu yëpp ah, nu jël ko teg ka ne moom Kaliphone dellu na Sénégal gis nga li nga xamante ni moo viol yeeg yooyu ba nu inculpé ko tey dañ ko doon atte tëj nañ ko 6 mois waaye un mois yi nga xam ne da koy tëdd ak amande ko xaalis ban gis-gis nga am ci Kaliphone ak lan muy ëllëgum. waaw non ëllëgu nit moom yàlla rek ko xam mais am na loo xam ne bettu ma daal parce que nit moom lu ci am solo la nga nite euh, politique mën nga koo def nga def ko ci anam bu rafet. pas nga nga koy def si dépasser nit wala saaga nit yooyu yëpp mën na ñàkk am na loo xam ne nag bettuma parce que am na ñoo xam ne ku leen laal rek danga dem ba la lay def loo sa doo ko xam parce que nit ku baax boo ko laalee rek wala muy nitu yàlla dina dem ba day mel dañ lay xabtal si lu bari waaw li ma koy conseil daal bu génnee na xoolaat boppam tuub képp koo xam ne def na la lu bon wala mu def la lu ñaaw mu jéggalu la suma ku mel ni yaayu Ousmane Sonko di jigéen bu sell jigéen bu baax wax dëgg yàlla jigéen boo xam ni royukaay la lépp looy wax ci moom te mënoo ko seetal lu baax rek maanu ci moo ci gën ay wax yu ñaaw ak wax yoo xam ne ku ko dégg euh, doo ko bëgg sa déglu waaw xale nag bu bëggee gudd fan wala bëgg mujjam baax day wax yaru di def lu baax di ko wax waaw moo ëpp solo daal mais moom li ko dal ah bettu ma nag bettu ma bettu ma waaw na changé daal na moo tax nga di bettu la. waaw xam nga xale moom bu fekkee da nga nekk xale. ba pare di saaga ay mag ñu la mag. waaw jument fu ngay dundee du la neex nga ni danga koy def parce que xëy na yaa ànd ak ki nga xam ni moo yor doole ji tey ah di saaga ay gor loolu ku koy def rek euh, ñeewuma la te xam naa ni. boo delul ginnaaw rek say mujj du baax. gisoo ne am na loo xamante ni am na ci suuf ci diggante ak ñi nga xamante ni am na lu mu seqoon ak ñoom ndax ki nga xamante ni mooy euh, Gabriel Kane la mujj joteel ci plateau bu mu doon def ca Walf donc ñoom ñaar jote nañ fi ba moom menacé na Gabriel am yim lu wax loolu daal bi ñu ko sentiree ba na sa ëllëg sa la jàpp ni euh, la la ñu jàpp Californie. daal di ko daal di ko tëj loolu est-ce que gisoon ni ay coup la yoo xamante ni ñoom ñoo ko doon def seen biir ak yooyu ci wàllu dossier Adji Sarr ak yooyu ndax jàppoo loolu. waaw ñoom ñoo bokk mbuus rek parce que démb ñoom la woon kon nag tey bu demee ba ñoom seen biir ñuy jëfur am na lu ko waral mooy li ma la chaque jour dama ne am na nit ñoo xam nit nañu da ngay toog ak ñoom mais yàlla moo leen téyel seen boppam. waaw boo leen rek wala nga def leen loo xam ne rek du noonu rek yàlla ci boppam ngay xeexal parce que yàlla képp ku mu ngemb boo jugee ni danga koy xeex rek yàgg yàgg yàgg lii rek ciy mujj tamante dëmm mel ni ñu jëfur waaw du si bëri nag bettu ma ndax man euh, ki ñuy waxal dama ko xam muy Ousmane Sonko waaw dama ko xam muy nit ku baax nit ku sell euh, nit nag danga ko gis nii rek nga bëgg ko estimer ko mais rawatina nag nga toog ak moom ngeen toog waxtaan da nga koy gën a bëgg moom ba président Sonko parce que noonu la ko yàlla bindee. d' accord euh, El Hadj su ma la doon laaj ci yenn jamono nga toog sentir ni yow da nga bëgg da estime estimer le pro Sonko ci yenn jamono nga toog mbiru Sonko dugg la ba nga ni sa activité yëpp yi nga daan def da nga koy bàyyi da ngay concentré wu ci Pastef da ngay concentré wu ci Sonko ak ay mbiram loolu kañ la la kañ la la dikkal. non bi ma dikkalee mooy bi mu nekkee impôt domaine. jékki-jékki ci problème boobu ñu doon wax euh, ak ni mu demee ak ba muy bàyyi ba ñu koy dàq lépp maa koy suivre quoi aussi nit boo amee xel danga ni kii kat fi mu post bi mu nekk tey bu doon ku njublang wala muy trian du xuloo kenn xam nga la ko war rek lay def parce que fii ñu ñëpp a yeewu ñu ñëpp xam na mu demee mais bañ gu muy bañ ak jub gu mu jub moo tax xëy na ñu jëlee ko fa ma xam ne kii tamit ko jub la ku ko jàppale tamit dina dem boobu maa ngi koy suivre mais bi ma gënee fël nag mooy bi ñu demee nag ba nga xam ñu ngi koy néewal doole di ko jaay doole dëgg nag boobu képp kuy jullit rek leer dëkk sa xol ak sa xol rafet doo mën a seetaan foog foog nga am noo def foog nga am noo def parce que sa xol day jeex daal parce que man bëgguma kuy néewal nit doole rawatina Ousmane Sonko ma nga xam ne tey lépp lu mu daj ak askan wi moo waral mu daj ko waaw loolu nag moom gën a poussé ci moom. d'accord nga gis euh, temps yi ojo yi nga xamante ni mi ngi fuité ci audio yi jëm yi jógee ci Cheikh Bara Ndiaye la ñu wax yoo xamante ni fuité na ci Sonko la ci wax ay kaddu yoo xamante ne nañu du kàddu yu rafet. nee na nu sax ñi nga xamante ni ñoo nekk au parti au pouvoir mosuñu wax kàddu yi ñaawe nii Sonko. ba Cheikh Bara njaay mi nga xamante ni daf ko doon défendre démb ak barki démb di ko wax pro Sonko kàddu yooyu ndax loo gëm la wala jàpp nga ne Cheikh baara moo ko def naam moom mi ko wax sax yéyu yéyu ci yàbbi si leeral ba xam moo ko wax wala defu ko mais ndax jàpp nga ni Cheikh Bara dina jël ay kàddu yu ñaaw di ko jëmale ci pro Sonko waaw non man nag wóoruma déglu naa audio yi bu dee dëgg moom rafetul mm. bu dee dëgg rafetul quoi parce que mooy li ma wax jour rek sànq dama la damay delluwaat ci ginnaaw parce que dama ne dafa am nit ñoo xam ni yàlla mënul téel boppam booy booy ànd ak ñoom te setoo rek yàgg yàgg yàgg yàlla dalay weer waaw parce que am na loo xam ni moom dafa rafetul dafa rafetul ci nit parce que nit man yàlla dama dimbali ba ñi may fréquenté ñëpp dañoo bëgg Ousmane Sonko mm-hmm. euh, lu baax la ñuy wax ci Ousmane Sonko mais am na kàddu yoo xam ne moom rafetul te aussi mën na ko yàqal lu bëri daal parce que mën na dem ba confiance bi ñu ko waroon a jox wala bu ñu ko joxoon wàññeeku waaw parce que jullit ci boppam sax moo wëtt jëw jëw moo baaxul ci boppam waaw parce que wax yi dafa ñaaw parce que euh, xasse la quoi xasse la xam nga da ngay nettali loo xam ne dafa am mais xas se baaxul te man audio yu ma déglu foofu laa ko teg daal maanaam di. xas Sonko waa di ko xas di ko minimiser. man loolu laa gis quoi. loolu loolu tamit ñu bëri gëmuñu ko parce que Cheikh Bara waxam waxam démb boo ko déggee ci Sonko mosul jël loo xamante ne lu ñaaw la di ko teg ci Sonko da koy défendre ku ko moytuwul du séem ku ciy wax di nga lii di ci la tey nu jékki-jékki gis est-ce que amul laneen loo xamante ne bu fekkee ojo yi dëgg la loo xamante ni euh, mi ngi wane ni Cheikh baara mi est-ce que du du fa du du jékki-jékki def laneen quoi dem fare faneen wala euh, tey euh, parti au pouvoir woo ko jox ko xaalis wala dara est-ce que ma xel mënul jàpp loolu. non loolu moom mënuma koo xalaat quoi parce que waxuma la moo ko def dama leen fekk audio yi am na yu mu def la ay avant muy dugg ci Sonko parce que yenn saa yi nga dégg ni avant muy dugg ci Sonko la boobu dafa gëmoon parce que am na loo xam ni nit boo koy incarné si réew waru la waaw jëw ci boppam mu baaxul waaw nit nit ki lépp yax na nay lu rafet waaw wala balaa ngaa wax nga xool ba li ngay wax leer la nga soog koo génn sa gémmiñ fekkee ne nga da jàngale nit ñu bëri di jàng ci yow lépp looy génn sa gémmiñ ak nay du rafet ndax ëllëg a tax nit nag day juum day juum mais nag man neexuma dara naqari na ma trop naqari na ma trop waaw waaw jërëjëf El Hadj euh, ci noonu la ñuy duggee ci ki nga xamante ni mooy euh, ba tey Thiaba di doom ci Fatoumata Ndiaye Tampi gis nga moom it boobu ba léegi coow li nga xamante ni mi ngi koy am ak waajuram saa su muy génn di di di wax lu ne Fatoumata Ndiaye Tampi ah tamuy tamuy tamuy waajuram ah, ah dem na sax ba maire bi day génn moom it di tontonte ak doomam ah, d'abord ba lu ñuy dugg ci li nga xamante ni xew na jamono yi ci ñoom ñaar eh, lan nga gisee loolu loolu Fatoumata Ndiaye Tampi bu génnee wax lii doom ji doom ji bu génnee wax lii yaay ji eh, loolu noo ko jàngatee El non ñu di ko ñaawlu rek parce que yaay moom xeer la ni ko mag ñi di waxee doom nen la yaay bu dalee sa kaw nga toj boo dalee ci kawam toj waa ak yaayam mu mën a mel te yaayam bu doon naan sàngara sax moom nu ñu ko waxee sax da ko war a jëndal sàngara nëbbal ko ko waaw mu xoolaat boppam parce que lii bu ko jugtee ni da ciy bëgg a wéy ah, yàlla de moo yor fan waaye mën na ko yàqal lu bari si àddinaam waaw day xam ne xale la nag waaw li mu bëgg a jugtee du du du wàllam. gisoo ne am na ñu nekk ci ginnaaw parce que nee na euh, ku ci mel ñoom Gabriel ñoo ko hébergé ah est-ce que ñooñu nekkuñu ci ginnaawam di ko defloo yi muy def fan yi sax génn na di wax benn sëriñu Sonko moo ko tëddee jox ko vingt mille ak yooyu est-ce que amul ñu nekk ci ginnaawam di ko defloo ndax moo li muy def. non moo ko tey rek moo ko tey xam nga àddina moom même euh, bu ñu ko wooyee euh, ak ku ko mën a woo ak ku ko mën a digal dafa foo war a use xelam xam ni xale la te dafa am avenir dafa toll ci avenir am dafa war a jur doom dafa war a am jëkkër am na loo xam tamit boo ko melee kenn du la ñeme si àddina muy jëkkër muy lépp moom mu ngi yàqal boppam loo xam ni sa xamu ko même bu ñu koy utiliser moom na xale la daal na xoolaat boppam xool xam ne ni muy man dem na koy seetaan muy xaseek di def lu ko neex lay def karamam dafa tolluwul foofu daal te loolu aussi maa ngi ci woo état bi ñu jàpp ci quoi parce que xale la mineur la xama daal ñu sàkk ci pexe daal xam nga parce que loolu day tax rek xale yu yàqu parce que ku ko seetaan xale bu ko seetaan mën na la yàq mën na la yàq oui na xoolaat boppam daal ba ñu ko mënee tere daal affaire internet bi ak YouTube bi yooyu. moo xam ne xale la toog place xale yaayam bu ko mënee récupérer moo xam mu fu mu ko yóbbu ñu kii ko daal mais li muy def moom ñaaw na trop quoi. jërëjëf ba léegi dañuy dem ci Ziguinchor euh, euh, ci gan gi nga xamante ni defoon nga ko ci 48 euh, heures yi fa Sonko def nga ànd ceeg moom d'abord lan moo waraloon dem gi ànd ak Sonko ci 48 heures yi nga xamante ni defoon na ko Ziguinchor. waaw li tax ma demoon rek xam nga sonk moom bi mu toogee yàggul. mais dafa defoon quarante huit yoo xam ne dafa jël ay oto yu mag ay camion yu mag yu bees tàq euh, may ko waa euh, Casamance aussi def set setal macha allah wax dëgg yàlla muy loo xam ne lu rafet la ba fa demee nag xëy na xamoon naa kuy Sonko waaye dama dem xamaat kan mooy Ousmane Sonko parce que non lu tax ma xamaat ko mooy damay toog yenn ay yi euh, si mairie bi ba ay dix heures ci guddi ay vingt deux heures wax dëgg yàlla muy liggéeykat boo xam ni wax dëgg yàlla loolu mosuma ko gis fenn euh, toog naa fa samedi gis ko mu romb ma dem liggéey dimanche même chose mu dem ci mairie bi mu ma xool ko xam ni kii liggéeykat dëgg la waaw lu ma ko gënoon a bëgg gën ko estimer dafa gën a yokk daa si dool damay woo maak moom dong ñu lekk bu ma lekkee sa teg kudd gi moom day teg kuddam ni nii suur na boo lekk du ma lekk damay obligé jëlaat kudd gi mu soog a jëlaat kurdeem xam nga moom ma jikk boo xam ni wax dëgg yàlla jikk bu rafet damay ñëw sa salon bi suñu samay dàll da koy day dem ba ci salon ski bi jël dàll di ñëw ba fekk fi ma toog jox ma dàll yi mu wóor tey li ma ko bëggoon dama ko gën a estimer dama ko gën a bëgg muy nit ku baax nit ku yiw nit ku dëggu nag parce que boo gisee mu naan waa Casamance xale yi góor ñi bàyyi leen attaay yi bàyyi grand place yi xam nga jublu si liggéey bi dem bay kooku ku ku dëggu rek moo ko moom mooy wax loolu ndax tey bu dëggul mën na leen neexal li ngeen def noonu la xam nga pour carte leneen waaye Sonko daal moom dañu koy ñaanal rek suñu boroom daal jàppale ko daal jàppale ko wax dëgg yàlla ku baax ku baax ku baax man nag nitu yàlla laa ko jàppe daal man teguma ko nit nii rek nit ku nitu yàlla daal laa ko jàppe muy nit ku baax waaw li mu am nag moo ko may boppam ndax yaroom bari kersaam waxam bariwul muy nit ku teey tamit dañ koy ñaanal daal waaw Casamance nag neexoon na moom neexoon na trop. gis la tamit aussi nga jege waajurum bu jigéen photo ak moom saafonte ak moom lan nga nu mën a wax ci soxna su nga xamante ni am na loo dund ak moom. waaw noo kooku soxna la xam nga léegi soxna yi am na mais pour mu am dañ koy woñ wajj te xam nga Sonko dalay woon ni maamam wàlliwu la parce que Alaaji Rawaan Ngom dalay woon ni maamam la loolu ñu bëri xamuñu ko. soxna si nag euh, ku sell la ku sell la bis boo ko boo toogee ak moom rek da nga gis lu bëri loo xam ni da nga koy sentir ci moom ngir yiwam bëri kersa euh, du xool nit sax day sëgg rek di nit ku baax moom tamit nit ku dal moo ne bi ma gisee yaayu Sonko rek laa xam ni Sonko nii rek la mën a mel parce que doom ndey ja te wax dëgg yàlla macha allah ku fa dem mu yëgal la ci kaw gisoo bi ma photo bi sax ba ma toogee suuf dafa mer mun ma toogal ci kaw ma ne ko d bàyyi ma toog fii waaw moom tamit ndeysaan mu ma daan seetaan si ay dina ma neex ak yooyu <laughs> ba fa demee nag président ma nuy jël maire ma dem fa ziare ci ko dëgg yàlla mu ñaanal ma ci li nga mujj la ñuy la ñuy la ñuy xam naa daane la rek ci lu jëm ci wàllu théâtre da nga tudd léegi dina ma neex nga gis ni eh, saa su ne ñi nga xamante ni ay mag lañu yi daan jouer théâtre Euh, tey nu jël exemple ci ki nga xamante ne mooy Lamine Ndiaye génn na jamono yi di balaame ñi nga xamante ne mooy waa Soleil Levant bay tudd xaalis boo xamante ne amel nan ko ko xama yooyu mu mel na ñoom bu ñu xasee ba ba jëm mag ñu bëree dañ leen di dañ leen di négligé ah ak euh, di di di leen fàtte ak lépp aar bu nu mënti def ci Sénégal day mel ne loolu dootuñu ko xoolati ah. lan nga mën a ban njàngat ngay def ci ci ci ci ci aaru Sénégal bi nga xamante ni moo xew léegi jamono jii. non ñaaw rek ñaaw rek dafa ñaaw nag xam man xaw ma lan la xaw ma théâtre daal daganul xaw ma jon sé parce que dama gis képp ku ci nekk mag rek boo feebaree da nga am problème pour faju bala ngaa faju foog ñu corriger la te lépp nag wax dëgg yàlla du ci kenn ku dul état bi parce que am nag rek ku ma ko wax keroog ni ma laaj yen boo leen nekkoon Europe tey kenn waxatu ko ay millionnaire ngeen di doon wala ay milliardaire xam nga nu tamit affaire saa neex bi dégg naa ay amel nga ma xaalis ameloo ma xaalis parce que dafa am loo xam ni jaru ko daal parce que ñun ñii képp ku fi toog rek man mii toog xëy na am na loo xam ne tey bu ma ko waxoon ci ay nit ñoo xam dañ ma yor xaalis xëy na bu subaa ñu mbamb leen waaw àddina moom ak lu mu metti metti rek chaque jour rek lépp looy réglé réglé ko mais pas mu dem si parce que ñu ñëpp benn nañ waaw képp koo weer rek weer nga sa moroom te àddina mu solo ñëpp benn nañu quoi te Cheikhou xam naa ko sa neex muy nit ku baax moom tamit nit ko oyof nit koo xam ne wax dëgg alalam du ko boole kenn waaw kon nag xam naa lépp lu si mën a am rek erreur la parce que mujj gi dégg naa ni sa xaalis bi génnul lool waaw Cheikh Jojo tamit moom foo gis day julli moom julli rek la dëkkee ko bari yéen mën la moom tamit keroog rek temps yi passé dafa sol jógin ma ne ko summil jox ma ko da koo summi jox ma ko te loolu mënoon naa xalaat a ah, sama ñaq ngi ci kii bu ma ko joxee mais dafa summi jox ma xam nga ñu ñëpp benn nañ daal dañ ñaan rek gën a taxawoo état bi te mu geesu artistes yi loolu rek a ci am solo loolu rek a ci am solo. jërëjëf El Hadj Rafet na nañu ci dalal bi nga xamante ni tey dalaloon nga Sénégal 7 dañuy bàyyi nga euh, wax nu sa kàddu gu mujj bala ñuy yëkkati jotaay bi. waaw non ma leen di gërëm rek waa Sénégal set di gërëm aussi suma benn xarit Cheikh Thiam moom te mi ngi si Sonko mi ngi koy jàppal bu baax ak sama xarit Daouda Ndiaye ak euh, euh, Abbas Fall moo nga xam ni moom tamit monsieur le ku baax moom tamit koo xam ni Pastef aussi ku ko bëgg la ku yàgg taxawu Ousmane Sonko la may nuyu ñëpp rek di nuyu waa Sénégal gépp di nuyu fàttewuma kenn daal képp ku ma fàtte rek xam nga ni Euh, itte yi rek kii rek xel moo <laughs> demee noonu quoi mais maa ngi nuyu ñëpp di leen nuyu yéen tamit waa Sénégal set di ñaan jàmm di ñaan yàlla def fi jàmm di ñaan yàlla def fi xéewal ci barke yonent bi ñëpp doon benn parce que ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay Sénégal ñoo ko moom kon nag euh, yàlla na fi yàlla def fi jàmm. jëf jaajëf alaaji rafet lanu amoon tey seet woon ko waa Sénégal set gis ngeen kàddu yi nga xamante ni kàddu yu am solo la yi nga xamante ni génne na ko fii ah muy kàddu yu nu war a jël ñun ñëpp daal di ci am ay njàngat yu ñu ci def mbokk yi noonu la demee woon ñu ngi leen di jox dig daje ba beneen yoon ci seneen beneen jotaay incha allah ci Sénégal set yaa ngeen jëf.